salaamaaleykum mbokki téléspectateur yu Hann TV ginaaw bu ñu leen di ñu ngi leen remercier ci li ngeen ñuy suivre ci réseaux sociaux yi di leen wax aussi ngeen wéyal top bi ndax li ci kanam moy dak alors dañ leen dalal ak jamm fi ci parc de an ci sen benen numéro l'invité fa seese ànd ak benn ancien international sénégalais ku football coupe du monde 2002 ak Lion de la Teranga nek aussi doomu yarax ñu diko wax amdi mustapha fay sëñ amdi ma bàyyi nga nuyoo ko waa Sénégal asalaamaaleykum wa Sénégal wa antv maa leen di nuyu di leen sargal surtout di leen sant aussi ci invitation bi invité et ça fait plaisir. waaw Amdy euh, li ñu la njëkk a laaj mooy ginnaaw carrière bi reconversion bi Amdy ci lan lay yëngu. en fait sama base actuellement euh, fële Touba la ñu ngi yëngu ci surtout ci mbiru social on a essayé def nañ fa jéem nañ fa au moins ubbi ay école parce que li ma fekk Touba dafa dama fekk ay xale yoo xamante ni alcorane day teel nek sen deun bu nu paré parents soit les jigen ni ñu jël maye len góor ñi soi-disant comme moyen amul fofu am ñu jënd sareet jox len ñu jaay ndox wala leneen ma xam amna potentiel bu nek fi déjà à bas âge alcorane nek sen de bu len jàngalé xaj peut-être ëlëk dinañ mëna a loolu ñuy wax nek relève ci bir Touba parce que dañu yag nañ fofu suñu grand parents yi danaka mbiru nasaraan mësuñu ci bëgg dara te xam na ne jamono ji liy doxal jamono mooy jàng xam-xam te boo xoolee borom dëkk ba muy Cheikh Ahmad Bamba daanaka jàngale la njëkk jàngale muy ne la yoon saa salaam waxoon ne bu ngeen xamee seen la ngeen war a xam seen diine na ngeen uti sàkku ji xam-xam bu ngeen di dox dem ba Chine donc comme Chine sori na te mën nañ ko def Touba <laughs> moo tax ñu dem def fa surtout benn école sociale boo xamante nii d'ailleurs ñoom la ñu àndal sax ci parc bi. voilà lolu ci côté talibé bi la ñu yaangi yëngu bu baax ci walum social. mais ci walum football en tant qu'ancien footballeur. waaw xam nga jamono yi yaa ngi yéen ngi may gis peut-être ci consultant. consultant ñu ñu ngi wax nak ñu ngi wax parce que wax lañu wax lañu alerter alerté. Mhm. ni peut-être lu fi mosuloon am moy tay jël baram joxoñ fédération né ni ngeen di doxé on dit pas tout est pas mauvais mais quand même war nañu mëna a améliorer wu. Mhm. parce que man témoin laa ci. Dans 92 ans de équipe et la plupart sont les mêmes dirigeants Madame Demounou, tu es donc les meilleurs toujours les femmes, football accaparé Ils def leur gagne-pain fait le football au lieu le football C'est loolu le problème. en tant consultant sañ mais dinañ ci nous mais comme euh, gis nañ fi ay anciens internationaux agent passé diplôme d'entraîneur côté musuma sax xalaat xagné peut-être li ko nek ak la nga bëgg a yëngu man je ne me vois pas damay wax dëgg rek te yàlla tax dem ma dem ci terrain ni ma ngi entraîner wala nangam et puis comme lu ñuy wax ne on peut pas tous être entraîneur ñi dañuy dem ci wàll bi ñi dem ci wàll bi ñi fété fi ñi fété fi ñi nga xamné tay côté fédération ñi fété côté staff ni féete côté entraîneur ni côté manam Non, la non la mais on on peut pas tous on peut pas dire que voilà rek yeewu bonjour un bon jour daal di wax Ni ñun ñëpp dañ bëgg entraîneur c'est pas possible il faut que tu nekk ñu départager ko ñi bëgg a def lii def lii ñi bëgg a def lii ñi bëgg a entraîneur gis na ñu ngi entraîneur suñ ko bëggoon parce que nous ñu nekk Clairefontaine tey Dans le ma quand j'étais quand j'étais jeune à Monaco donc tey dit xam naa nu ñuy wute entraîneur qui diplôme entraîneur mais peut-être ce c'est pas mes domaines. en tant que sportif côté infrastructure parce que gis nañ récemment Sénégal côté infrastructure nous avons ciy yëngu président Maxal, nous gis nañ euh, am Arena National nationale xamni clé kérok euh, récemment inauguré nañ fi le 8 bi passé inauguré nañ fi euh, Dakar Arena bu D'ailleurs, nous avons ñu ngi stade olympique bu 50 000 places en 2020 no gisé infrastructure yooyu ci côté sport. infrastructure ça c'est côté politique franchement man damay wax né bo bëggé def dara vous avez pas besoin de dire né dina def dara affaire politique la té man nak je suis apolitique je pense que tu li ñu def mënoon na ñak mënoon na ko def feneen gis nañ fi stade omnisport yo xamanteni tay ji lañu soxla ñun mën nañ ko fi def vous savez ben yoon la mos organiser coupe d'Afrique et te Sénégal ñu ngi ne pourquoi gagné 92 à chaque fois quand je me mets à dire ça avec les fédéraux ñu ne waaw amul infrastructure mhm. n'a pas besoin de ça Ghana moo nu gën Nigeria, développé Nigéria moo nu gën aujourd'hui xol coupe du monde bi la preuve muy Canada Mexique États-Unis. états Nous nous disons pourquoi pas. À chaque fois, je leur demande la question pourquoi vous n'allez pas sur la sous-région, la Gambie, Guinée-Conakry, Guinée-Bissau ou Mali, nous mhm. disons organiser une Coupe d'Afrique. Et puis, là, toujours quand est-ce qu'on va prendre une Coupe d'Afrique la, la, la, majeure partie, bon, l'équipe maghrébine. Chance, nous avons et puis avec flair. Si nous avons une génération, nous avons fait de suite. Nous avons fait tout pour faire le forcing. 4 ans, 6 ans, nous avons organisé Coupe d'Afrique. C'est la plupart des Malais expliquent maghrébin yi jël yi organiser coupe d'Afrique ñoo ko jël te loolu flair des ci ay dirigeants mais c'est pas le cas de nos plus dirigeants là Si on waxee ñu da nga leen di sànni xeer te yaakaaroo loolu côté infrastructure mën na ci dara. ci dara on n'a pas besoin d'infrastructure nous organisons organiser benn coupe d'Afrique pour xamante Gambie c'est dans le Sénégal. mais organisons organiser coupe d'Afrique sans infrastructure non infrastructure non stade am na stade ça suffit. Ghana benn stade pour dalal coupe d'Afrique. mais Ghana non, la def ak Nigéria Nigéria moo ñaari stade Ghana am benn stade pour mu jouer coupe d'Afrique. mais les xam nga léegi équipe mais non ba laataa ñu nous yokk mosuñu xalaat benn yoon ne dinañ organiser coupe d'Afrique. Mhm. pourquoi ça te bul fàtte ne aussi sunu fédéraux yi ça fait bi mooy seen troisième mandat musul am ci l'histoire du football Sénégal deux mandats musu fi am ku fi mas a toog comme président fédération benn mandat nga def demo nga def mais ñii de toog Tok, lu yàgg yoo xamante ni danoo sonal sénégalais ci lan né mënuma man demuma tête duma baye ken mu dem c'est pas bien parce que tay dama wax wax naa ko nee naa échec bi ngeen nara am tay moy ngeen nara baye def trois mandats té du ngeen organiser coupe d'Afrique Té tay béy wéy na mbuus du mënuñu ko. c'est impossible nekk nga foog.

keneen ku fi andi ñu andi ko fi ñu jéem a changé suñu football mu dem tant que ñi ñu ngi fi suñu football du dem fenn fenn du ko dem. léegi coupe du monde bi ñu génn ban bilan boo xam ne bu bref rek nga ñu defal quoi ak sacre France bi aussi. pour Sénégal xam nga dafa ñëwoon dafa fekk ñu fi def une coupe d' Afrique. non bilan ci coupe du monde bi en général. la waaw danoo ñëw fi def coupe d' Afrique. Mhm. boo xamante ni waxoon nan na passé quart de finale. Mhm. ñu ñëw coupe du monde. Nous avons vu ci diggante bi nga coupe d'Afrique boobu am de ci ñaari jours, ñett football Sénégal mhm. muy Sabali Mbaye les restes Le football bi ñu football Sénégal coupe du monde jouer mais suñu problème jusqu'à présent 2006 on n'a pas une équipe compétitive loolu la Sénégalais yu bari avec le bilan de Cissé il a que deux défaites mais deux défaites la phase finale équipe compétitive de dëgg c'est pas les Amara Amara il a fait zéro faute sur ses éliminatoires Zeres non non. ki noonu nu tëdd Lamine non non. Mhm. a fait la même chose mais arrivé en phase finale c'est là qu'on peine on n'a pas une équipe compétitive Si nous a trois matchs suñu football coupe du monde le niveau premier temps ni deuxième mi-temps équipe compétitive deuxième mi-temps ngay yëkk niveau premier mi-temps man nga wacc deuxième mi-temps nga niveau on n'a pas une équipe compétitive bamay wax li kenn xamul kañ la te kenn bëgguma dégg on n'a pas une équipe compétitive mentalement on n'a pas des joueurs qui peuvent aller jusqu'au jusqu'au bout c'est ça le problème. sacrifice bi loo ma ciy wax. sacrifice France, oui c'est une leçon la France dafa yag liguey dafa liguey 98 ay année année 98 ñëw jël def sacré 98. Mhm. Allemagne lañu njëkk a def mooy dañoo jël plus de je sais pas combien de dirigeants def nañ 6 mois xaw 8 mois en France pour dem Clairefontaine pour xool France nan la mën a def ba former ay joueurs centre de formation. Mhm. l' Espagne laa fait te ñoom xoolal dañoo dem France royi ji ci centre de formation surtout seen Clairefontaine. former ay joueurs tey loo ci gis te football léegi dama lay wax benn affaire da nga koy jël en petite catégorie jël ko en senior on n'a pas ça encore ñun dañoo négliger nos petite petite catégorie en 2000 2010 Espagne. C'est une petite gare ils ont Sane ñoo ko jël parce que parce que il faut loolu loolu waxtaan naa ci Aliou laa ci njëkk a waxtaanal da nga wara am flair entraîneur man mi nekkul entraîneur wara man am flair bu wax investissement à long terme gis nga un jeune nga préparer ko Mbappé 19 ans la nga yaakaar bu noonu Sénégal gi peut-être dañ ko jël dan 19 ans la xolal Aliou lu tane un entraîneur national ñu laaj ko woy Crépin diata mu né il est jeune c'est quoi la jeunesse mais jeunesse moy football système bi nga xamné tay moy mooy gagné équipe 4-3-3 4-2 4-4-2 mais système xalé la doo ko fubal loo parce que physiquement dañ lay ruiner physiquement donc nga jël xale man li ma ko waxoon dama ne ko yenal bi on a eu le cas de Ronaldo en 94 brésilien Zagolo Zagallo dafa ñëw yen ko ne ko xoolal sa grand frère yi benn match fubalu 98 98 dafa ñëw au Brésil 2002 dafa ñëw au Brésil aujourd'hui bu jëloon ñett yëpp dina am chance jël trois fois coupe du monde tey loolu mooy suñu problème fii les gens ne respectent pas les la petite catégorie surtout entre national bu ñu yor moom waroon na xam jeune il manque. une équipe qui jeunesse qui ci bi un a physiquement il était mieux que qui que ce soit donc affaire yi faire la coupe du monde bi coupe du monde prépare-toi dans 10 mois da ngay football coupe d'Afrique La coupe d'Afrique est le dernier recours

je vais lui en parler mu wax ma moom. Mhm. et et le staff aussi surtout le staff suñu staff nan lañ utiliser booy Sadio Mané. nan lañ ko utiliser nan lañ ko utiliser. dafa jóg en tant que consultant yow noo ko gisee nan lañ ko utiliser. ni ñu ko utiliser ñoom laa ko bëgg a laaj. Mhm. soit dañ ko bàyyi de trop mu récupérer mhm. wala dañ ko charger parce que boo xoolee Sadio Mané boo xoolee Sadio Mané sa force mooy force de pénétration. Sadio Mané coupe du monde yëpp benn rythme la football amul benn yoon mu def coup de rein day jël ba bi ko football nang taxaw motax mané ben il est trop fatigué dañ ko chargé wala ñaar boy bi dañ ko bàyyi mu nopplu de trop parce qu'il est totalement passé à côté totalement passé à côté. passé à côté ci ko xamni nak nag am di moom le seul sénégalais bu football final Ligue des champions tay ji fuñu ñu tudd ñoom Eto'o ak Drogba Madjer fofu lañ koy tudd. gis nga du excuse un joueur professionnel il y a pas y a pas d'excuse ben métier la moy football té ci football lañ ko xamé grand joueur moy grande compétition c'est bien il a fait une finale peut-être le seul joueur sénégalais. Mais regardez la façon comment ils jouent à Liverpool et comment on l'utilise dans notre équipe nationale. vous avez un rythme de football un changement de rythme une force de pénétration il y a di def nga atome mais defu ci dara Sadio Mané beaucoup ko année match premier match là ko s'est année nouveau tactique on ne peut rien lui dire parce que dafa ñëw def groupe Mais mhm. mais deuxième match troisième match là wax est kii sama gars yi physiquement nekk si entraînement yi wala tamit yaa équipe affaire Non, non non non non du loolu loolu mental côté mental Moi je parle physiquement quand il quand il court on voit que Ben, il est fatigué il a il s'est pas entraîné dañ ko noppal de trop ou parce que des jours comme ça quand tu as des jours qui font plus de 64 matchs par par par, par saison booy mu football champion euh, football final li nga waroon njëkk a def ci jël ko ber ko à côté benn entraînement la mën a muy des accélérations doo ko def loo physique accélération li muy retrouver ci biir match lay ñëw ngay ñëw mooy def loo ko ay cinq minutes cinq mètres yoo xamante ni ak day accélérer mu joxe boppam wala 10 mètres wala 15 mètres nga noppal ko kooku bu demaatee ci match la muy la mu doon football Liverpool mu lay ñëwaat football mais je ne vois pas notre staff là am xel buñ ko football la lool benn dañ ko chargé wala benn wala ñaar ñu noppal ko moo tax boobu passé complètement à côté te moom moo la gën a xam ne il est passé à côté te wallaay dama ne un jour comme ça nga xam ne coupe du monde pour une première fois il est même pas sûr qu'il sera encore là en équipe nationale d'ici 4 ans nga xam ne dernier recours dernière chance la je pense que il pouvait faire mieux que ça. Et tey jii lan ngay reproché fédération bi. li ñu di reproché bari na sama sëriñ fédération mooy lu ñëpp moom boo gisee ñu ciy wax dana am droit wax ci droit bi mooy ñun ñëpp ay sénégalais li ma am droit wax yow ci nga am droit wax am nga droit wax sa opinion ñun on a fait cette théorie là avec pratique am nañ droit on a fait plus de 20 ans de carrière mën noo ñibbi si fii gis yoo xamante ni doxuñu toog di noppi sera loolu sera l'hypocrisie loolu ñuy wax nag xëy na mooy dérange ñu bari. la ngeen wax comme. li ñuy wax comme par exemple ñoom lii ñuy def par exemple def nga premier def nga Coupe d'Afrique 2000 lu leen fi qualifié 2010 ñii ba ñu 2008 bi ñu jaaxee ñu fi nekk ñoom dañoo ñëw 2010 qualifié déjà Moi déjà moi déjà moi première chose boo xamante ni dañ leen waroon a dañoo démissionner ñàkk qualifié ñëw. ñoo xamanteni ni toll ni équipe Sénégal ñu né dem na coupe du monde def na fa quart de finale. Mhm. coupe d'Afrique qualifié woo ko muy 2010. 2012 mhm. nga ñëw ak Amara Traoré. il a fait des éliminatoires comme limay wax né compétition mooy deug dëgg d'avoir une équipe compétitive. Mhm. nga dem ñu def nga def trois fois nga perte gagné un ben match. parce que éliminatoire ci gagne ci joue une fois par 3 4 mois nga japp né yow yar équipe bu baax nga dem coupe d'Afrique tu termines dernier.

so de mes wu mais avant l'Assemblée générale bi que ban rôle ngeen parce que gis nañ seen collectif bi. alerté on a secoué le vous pour bloquer mais depuis que vous faut dafa vous Nous da ngeen de rek di Vous xam nga ñun comité nous yor. comité pour juste alerte ñun yornu comité bo xamanteni exécutif bo xamanteni ñoy dogal li xew fédération yornu yornu lool li nu mënon moy mom waxnako fekk nañu suñu comité bi avant veille élection yi fekk nañu ne mune ne mu ne am di yeen li ngeen ma def kenn musuma ko def élection da da jot sama digënté goré Dakar lay tok ñëw gën élection yeen tax ngeen ma dugg dëkk bi parce que c'était trop facile tu ne peux pas faire échec échec échec échec continuer na yow da nga war da nga wara jité lool mënta nek mënta nek loolu bu fekkee Sénégal dañ ko koy et puis fi la gis Sénégal fi la gis Sénégal Sénégal dañ lay fal ba paré dila la tàccu fal la ba yow lo xamanteni yow yow mëno ko gérer sa bop nga ni diw la ci wol mais doo ko jox ba pare di pourquoi ngay tàccu su jaaro yoon nga ne ko jaaro yoon loolu moy wax ci mais Sénégal kese la gis avec habitude bi ñu yor muy habitude bo xamanteni xamu ban façon habitude la ces gens là dañuy ñew fal la ba paré dila la tout le temps buñ la falee dañ la wax. parce que dañ naan njiit mënoo ko jiital ba pare di ko fa xasal. déedéet ma ne loolu waxin la rek ay bu ko jox buñ ko jox xawma bopp rocc làmmiñ loolu hmm. waxin la rek. sénégalais il a c'est un bon parleur. mais aussi da nga koy bàyyi mu jël ay responsabilité mais boo ko bàyyee du dem il faut nit nit. dama ne la yonent sax le dernier des prophètes. Hmm. Mohamed daan na toog mu wax ak ay saabam daal di wax ne man de lii nii laa ko gisee bu ko defee ñooñu ne ko ndax lii waxu yàlla la wala sa wax la mu ne sama wax la ñooñu am lu ñu ci wax mais des gens yoo xamante ils ont rien à voir avec le football xam nga sénégalais man côté boobu dama leen ci mere ay Augustin ils ont rien à voir avec le football ay Ablaye Sow ils ont rien à voir avec le football. mais Auguste Senghor déjà un déjà un mooy mësta football xamul football le football au footballeur. mais président club la moo yor gore. waaw deux secondes ma wax loolu Sénégal la amati fi mu ah, mais pour nekk président club tamit am di parfois soxlawul ngay football waa d'accord pour président pour mais fédération lan wax man waxuma président football fédération lan wax imagine dama lay wax ne Issa xam nga ne benn entraîneur moo fi desagum fii ci jamono ji muy José Mourinho koo xam mosu football toutes les équipes maintenant ay ay footballeurs ñoo leen yor aujourd'hui loolu amul amul amul kii boobu tey jii ñoom lii ñuy xeex parce que xam nañ ils sont incapables li ñuy xeex mooy boo nee jour bi arrêté na carrière am wala nangam de suite seen première chose mooy ah amul lu mu def dañ koy cogné dugg na fii Samba Ndiaye ñoom li ñuy bëgg mooy ancien joueur bi wala kii moy nañu wax ne amul xaalis amul dara dugg na na torox c'est pas ça esprit suñu esprit sénégalais mo bon Côte d'Ivoire barki Dembo Ndiaye Yaya ki kii euh, na le frère de Yaya Touré Kolo ba mu nee dafa arrêté carrière de suite la ko fédération boo jox ko poste wala né ko nangam ak nangam nga xamné au moins wonan ko né ko voilà des années que tu as passé avec l'équipe nationale nga xamné mais lolu moy but bi nga jël un ancien joueur tek ko benn place bo xamné dina jariñ xalé yi ñew

ba boy wax léegi waxo ngir sa bakan waxo pour saboter da ngay wax pour alerter ñun li fi ñu def moy on avait secoué le cocotier wax ne ki mënta nek fi pendant des décennies Augustin Senghor defu fi dara lu fi baax depuis 2008 ba élection yi passé mu bëgg ne dafa bëgg troisième mandat mësta am dans l'histoire du football sénégalais. collectif bi pour mais bien sûr bien sûr lool bi mu joggé ñi nga xamné ne ñoo waroon àndandoo dem gis nga doon dem doon dem nous mu tuddati élection mhm. pourtant tout le monde tous les Sénégalais avaient vomi Il émission télé y' a un gars qui Sénégalais fédération mhm. mais c'est un avocat et c'est comment répondre parce que jusqu'à présent émission émissions ils sont toujours à leur défensive Je n'ai pas solution mais ils sont à leur défensive affaire du c'est bon sens ñom dañu wara tok ñu sen bop xamné ne yàlla mo man bu la yalla joxé ne la du sa de nga bayiko jox mu dem lolu la. soxla Sénégal jël coupe d'Afrique ñepp lolu ñaan mais comme ñu mënu nan Nous ñu jël ñeneen ño xamanteni ni ñëw fi au moins accompagner c'est tout. kon mbokk yi yéen suivre émission invité ñu am ànd ci tey ak Moustapha Faye di leen wax ne aussi bu ngeen bu leen abonné ay vidéo yi am solo mu ngi leen xaar alors Amdi, en tant que doomu

te gis ngeen coow yi am yaraax dem nañ ba léegi ñetti zone ñoo fi am xam nga ñetti zone footballeur mënatul génn yaraax booy nangootunu football ngan di problème moo nekk yaraax ci problème football. mais loolu yéen ñi nga xam ne def ngeen carrière football nekk ci dëkk bi aussi amu leen ci part de responsabilité. non amuñu ci benn part de responsabilité. nga comme li ngay a alerter aussi. Ah, boobu yàgg naa ko def xam nga xam-xam dafay ñëw man daanaa jël ay équipement di jox ay club nawetaan ba xam-xam ñëwee laa bàyyi loolu.

nga bëgg ñëw ne da nga fi bëgg former trois équipes yoo xamante ni j'en ai parlé avec le maire maire bi mu ñëwee mu ne mu waaw moom xam day joxe subvention il y avait cinq millions xam yu muy jox ma ne ko man aujourd'hui je suis pour une petite catégorie tam vous avez même pas besoin de sortir un seul centime boo joxee petite catégorie bu dee équipement loolu mën na ko dem lijji lijjanti bu dee dàll mën na ko dem lijjanti ay sagi nga jox ko xale yi de du mercredi au samedi nga yóbbu leen terrain bu mag ba prendre des entraîneurs yoo xamante ni tey jii ñuy nekk ci nawetaan bi nga yóbbu leen nga commencer former ay joueurs bu tout il n'a pas besoin de le faire fekkee jënd jeunes mu jënd nous ñu commencé former 5 ans 10 ans mu a na la tey ci am junior junior senior équipe grand club Barcelone Real Madrid Nous nous nous lañ commencé. nga dem a commencé petite catégorie mais Sénégal Nous nous avons base Moi petite catégorie yaraax da a ñëw rek gis nga yaraax dem ba du football ñeneen ñoo ci football amatuñu jour bo xamanteni ni ko sax ñu ne mu ngi def test en France wala nangam et ça c'est dommage c'est dommage té pourtant tan mu fi am ba légui man xaw boy ñu nangatu football yi championnat xawma peut-être talent bobu mo fi nekatul mais lañuy dem di football yi championnat ci biti nga yaakaar tamit aussi comme depuis xam-xam mënuñu rejoindre élite bi est ce que tamit centre yi fi nek buñu ñu leen dooleeloon du trouver solution pour affaire bobu centre bobu ki mënu ko dama la mairie buy joxe même pas plus de dix millions cinq millions.

mais loolu defuñu ko fii yaraax comme tulleeg màlle ku ci nek day aw fi ku ci nekk day aw fele bu jog jógee nga ne ma ngi dem ci mairie pour mu jox nu nangam sangam du noonu il faut ñu commencer petit petit petite catégorie centre de formation yi fi nek ñu jéem aussi jéem former parce que aussi ñom mën nañ leen joxoon di doigt ne leen lan ngeen fi former ana jour yi fi nek ni jour équipe nationale ban jour ngeen fi amagum bu football championnat France championnat Sénégal mën nañ leen joxoon droit

man buma ni fuma fu ma je suis obligé parce que fii mooy sama quartier sama village natal aw ma aw ma lu dul fii malgré Touba laa dëkk naa nekk léegi dugg na fii Samba Ndiaye mais c'est sûr et certain amul lu fi war a xew ci niveau football mais tey ji imaginaire kan moom war wara moo tey ba wara war personne parce que ñi aw fii ñi aw fii ñi fi, fii ku nekk yaa ngi créé personnellement man je suis pas là-dedans man lu ñuy créé man na doon loo xamante ni yaraax moo ko doon yaraax lolo bénéficié wu ci loolu su ma ci nekkul kenn nekk ci mais yaraax na doon doomu yaraax ñu mën continuer def loolu loolu moo waral tey xëccoo ak ŋaayoo bi mënatuñu am joueur boo xamante ni tey jii footballati ne première division Sénégal sax mënatu ko football gis nga mu ngi noonu c'est impressionnant te pourtant depuis sunu grand ñoom am Amdi Sarr muy Baba Ndiaye Moustapha Ndiaye abu Sarr ba ci Ousmane Thiongaan ba ñun ñëw ak ñoom Pape Jean Perlet ñu ñëw jël relève bi nekk équipe nationale ba ñooñu ñëpp da nga doon gis ne à chaque fois on parlait de Yaraax Ablaye Diaw gis ngeen ko chaque dimanche quand il parle mënul wax te waxul Yaraax la ko aujourd'hui on en a plus et c'est dommage. parce que dama ko doon dégg dañ naan euh, footballu yaraax bi mu jamono ji ci la ay jiyaak ay jaraaf ak commencé manqué ay jour parce que ñom bu njëkk dinañ fi lañ doon jëlé merci beaucoup man mi ja jia laa jaar ñene nak ñeneen ak noonu.

bon ni la nga ay propositions yi nga xamni def nga ko pour mais ay acte, est-ce que mën nañ ko xaar ay ni Abdi jël acte ak centre formation bi ñu yëkëti boy ci kanam ak nga centre formation dafa bari mëno japp fi jappalé li nga mëna def rek peut-être ya suñu biir. Mhm. ñu centre formation xolal France namuy tollu Paris Clairefontaine la du fukk du ñaar moy former ay joueurs sànni ci yenen gox yi te yaraax mën na def lu mel non jël lu mel ni Fontaine peut-être moyen nekk fi du don peut-être certains internats jël di former ay jeunes diko djema joxé a joxe muy jia jaraaf ëllëg fu ñu génn fii bul à chaque club formateur am nga 5 jour bu nu jaay 1 milliard wala 50 milliards yaraax amna ci fofu lay commencer parce que fi dama lay wax né la muy mën a keneen ak keneen kenn mënu ci dugal sa dërëm ba am ci résultat amunta nekk

joueurs yi nga xamné comme ay Sadio Mané partout il passe Liverpool transfert am bu rëy bii Géant foot xolé ñaata la ci am c'est ça acte yoy le yarax war ñëk posé d'ici 5 ans 10 ans ñu né kat li lañuy def mais bu féké né liggéey en fait du Sénégal du yarax kese c'est tout le pays gëmuñu petite catégorie ñen ñi rek ñoy jël volonté de bonne volonté dal di far ay def centre formation mais petite catégorie Ghana bis bu démé final à chaque fois regarde si 7 jours yo xamanteni ñoy don doon relève pour une première fois Sénégal am junior dem demi-finale coupe du monde nga jël fa benn joueur muy wage beneen joueur kenn mënu ko sax cité te booy ils sont pourris de talent ça c'est grave loolu mooy Sénégal gëmunu loolu boo xoolee tey jii vitrine bi suñu football mooy équipe équipe A France d'une fournir ay joueurs ay binationaux xaw ma je sais pas quoi là. et puis moom laa qui wax keroog Ablaye Sow ci suñu émission manque de respect bi nga xam boy booy ñu ngi koy def mas équipe nationale nous ñëw fii jël drapeau dem football yi compétition ñibbi si dix personnes yëpp wala quinze dañuy jëm aw demi dem manque de respect bobu mo am Sénégal fi nek ni te xam nga li tax lool moy yow mi dëkk Sénégal bayyi fi nday bayyi fi bayyi bis bu Sénégal yëngo wala nga ñëw def nangam yaa ngi xalaat sa kër mën na tàkk wala nangam tu yaa ngi bàyyi loolu xel mais ki xamné il s'en fout yalla nga ngeen jégal ma chaque fois que y a un problème ngeen dem premier tour ngeen genn avion lay jël wañee ko dem dëkk fa mu dëkk muy fële man je ne suis pas pour ay ñi wax naan binationaux ñëpp sénégalais leen mais ñu jël ñu def quota quota bi binationaux aujourd'hui on a que bi binationaux on a que ça du ñu paree dañuy football seen compétition dem ñibbi. ok am di waxtaan bi am na solo looy tàggatoo. waaw man daal maa ngi nuyu waa Yaraax yëpp yëpp yëpp yëpp daal di di ñaan yàlla dimbali nekk na dëkk boo xamante ni franchement xaj na superficie bi rëyul mais les gens c'est des gens aimables qui sont là franchement saa yoo saa yu ma génnee fu ma mënti nekk fu dul Yaraax ku ma ci gis ci waa Yaraax day mel danga nga nit ki ndey ak bay té vraiment ma ngi ñaan yalla soti fay xewal Boy aussi quand on parle de niveau football nañu xamné aussi ñun fañu fa lañu jaar dañu bay yaraax dem ba ay GIA dem football yi ji jànkonteeg les yenen doomu rew pour mën réussir lolu da lay pousser pour motivation la mais reste kese yara. football nawetaan kese ñu bari dañuy japp né dama bañ ay nawetaan mais réussite la bëgg pour boy. yi 3 trois mois football paré ci c'est la plupart ñu koy football tu ay élèves te le ko taxoon a jóg mooy vacancier les élèves aujourd'hui on a la chance d'avoir des centres de formation sport études ñu ñëw def loolu moo gën fukki junni yoon ñu yem ci ñu yem ci amul sens dal man loolu lay wax sama ñi nga xam tay ay rak lan wala ay dom lan nanu jema ku ci am talent forcer ce destin nga jëm ko dem outil ci inshallah rabbi